sunu jigéen ñi e, ñi ngi am kontante bu baax nag ba ñu organiser lii fii ci pencum e, Kër Madiop parce que pencum Kër Madiop ñun buñ fi dikkee war nañ fee ñëw buñ fi dikk buñ fooy sawar nañ fee dikk ndax dafa am loo xam ne lii lu ñu liyee avant lii ñun e, Kër Madiop moom mooy suñu bunt ci yoonu Serigne Touba ndax Serigne Bassirou moom mooy suñu mam Thierno Diop mom moy sunu njaatige kon euh, sunu fi invité fii dinañ am sawar lool ñew fi et ñi ngi remercier vraiment la présence de Ousseynou ak euh, délégation bi mu andal ñu jiital ci notre frère euh, Gora gaye Cham ak monsieur Khadim le représentant bo Kajoor des profondeurs ah li nak vraiment ñun ñëpp ñoko gissando gisandoo bokk ñun ñëpp aussi diko ko rafetlu ndax euh, mbir dafay demee noo xam ne nii euh, ku am analise politique xam ne vraiment nii la mën a nekke nit mënta nekk ci kër jàmbur e euh, bo bu defaree ndekki nga def ci suuf bu defee añ nga def ci suuf boobaa reer du la ca fekk yàlla nag dimbali na Ousseynou ba mu amee moomu xel xel mi mooy teel a ñëw maanaam jàpp ci liggéey bi bokk ci jàmbaar yi bu ëllëgee lépp lu ci nit seddu maanaam mu seddu ko ci Ousseynou Eh, bu doon ne maanaam luy séddal boppam la cëru boppam moo ko ñor kon du sonn ndax eh, jërul ñuy lim li nga xamee ne maanaam moom la fi def yaa ma dégg yittey doomu aadama yi yittey gox ji loolu rek moom mooy nga xam ne moom mooy yitteyam kon ma bëggoon mbooloo mi ñëpp buñ demee ba keroog le soir maanaam di 17 novembre eh, ñu dépuyer la commune de Mérina Dakhar

ki nga xamante ni mooy maam Thierno Diop nga xamante ni mën naa taxaw taxawaayu sunu baay Khalil di chef de village u Kër Madiop di nuyu également chef de village bu Ndoyen njas ak notable yi di nuyu ki nga xamante ni mën naa ni moo ñu dalal di sunu baay wala sunu ndijaay Saliou Diop di beral nuyoo ak cant sunu yaay xadika di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam di nuyu askanu Mérina Ndakhar bi yépp di nuyu le président Ousseynou Fall di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu xarit la le coordinateur Pastef des profondeurs Abdoulahad Gueye mu dëkk ñaaxeen ñoo ngi koy ziar ñoo ngi nuyu sunu frère conseil municipal di responsable Pastef fii ci commune u Mérina Ndakhar ma nommé Gora Gueye Thiam ñoo ngi lay ziar di nuyu également sunu mag conseil municipal également Modou Diagne ak délégation bi nu àndal yëpp mën naa cee cité sunu doyen njaga Seck ak aussi sunu sëriñ a ah, Cheikh bi Kunta lay ziar baax di la yóbbante nuyoo si ku tedd gi te di ko ñaanal yàlla guddal fanam mbooloom jëmmal yaakaar yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci teewaay bi nga xamante ni teew ngeen ko ci woote boo xamante ni woote bu jàmp la ndax fan yi xam ngeen ni dafa xat ñu jóge ci tudd moo xamante ni président amoon na ko yàlla dogal aussi ñu amoon dëj ca kër ga di ñaanal sunu maam jooju yàlla yàlla yeesal yërmandeem ci kawam malgré xat-xat yooyu yëpp wax dëgg yàlla ngeen def une mobilisation exceptionnelle kon ñoo ngi leen di nuyu ci tàmbalee ko nag ci la président Babacar Sarr mi nga xamante ni moo jiite jeunes yi ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Marème jiite li nga xam ne mooy les Amazones ku si nekk bokk ci jëmmal yaakaar yi fa nga nekk maa ngi la fay fekk jox la loxo sant la gërëm la ndax dooley jën ndox kon président Ousseynou Fall buñ bëggee mu am doole il faut ñuy mobiliser wu si bii nag sama rakk Ibra Mbaye mbayeen bi xam naa tey lim aña dafa neex ndax li mu wax dafa wax lépp kon foofu président du duñu def lu dul envoyé ko le pas di la sant ci choix bi nga xamante ne def nga ko ndax ñun amuñu choix sa choix rek mooy suñu choix président ko mënoon di choisir ah bu soobee yàlla ñun kooku rek la ñuy choisir kon alhamdulilah ba nga choisiree fi nga xamante ni ba ñu ko waxee xel yépp dañ fa daje mais loolu nag mbokk yi bu amee mën nañ cee sant yàlla mais ñu sant ci jëmm ji toog di Abdou Lahad Guèye muy wólle rek le président Ousseynou xam naa dina ci ñëw ci seen waxtaan dégg naa ñu xamante depuis 2001 boobu ay étudiant la kon tey buñ ba tey ànd bokk liggéey bi kii nga xam ni mooy Abdou Lahad joué si rôle bu am solo jar na wax dëgg yàlla ñun mouvement bépp ñun jukkeel ko ndax yéene ji nga xam ne am na ko ci président Ousseynou fal kër nag boo fay dugg fekk fa ay nit yoo xamante ni démb ak barki démb ñoo ngi fi doon xeex di dajale seeni clando di dajale seeni saret ba yàlla may leen ndam boo dikkee ca kër ga ñu yaatal la war nga leen a sant war nga leen a gërëm kon Gora Gaye yow ak euh, fin yi nga àndal yépp patriote yi nga àndal yépp ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di leen xamal ni ñii nga xamante ni ñooy jeunes yi nu Fall ak jigéen ñi dinaan ànd ak yéen liggéey ci yar ci njekk ci fulla actified kon ñoo ngi dalal senum xel ne inshallah allah ci li ñu jom mouvement jëmmal yaakar yi ci kanam Ousseynou Fall nek ci dina ci indi ben apport bo xamanteni ni apport la bo xamé bu ngeen taxawé au soir du 17 di ngeen xamni and ànd jël ak ñi nga xamanteni ñoo mata andal moy le mouvement jëmmal yaakar yi kon mbolo mi foofu rek lay daanale mais cant moom munta weesu sant président Ousseynou li sunu mag ma waxoon ni doomu ñay danga koy ñaanal gudd fan doo ko ñaanal rëy kon président ñoo ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan boo xoolee mbooloo mi président boo xoolee quatre-vingt pour cent ay jeunes la te jeunesse fu mu dem yaakaar rek ko ko fa yóbbu kon yaakaar jooju yàlla bu ko yàlla neenal jeunes yi am nañ ci aw yaakaar mag ñi ñëw am seenu njaboot am nañ ci yow yaakaar kon yaakaar jooju yàlla na ko yàlla sottil ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di nuyu maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di jiital si nuyoo bi les deux chefs de village mooy chef de village de Kër Madiop ak chef de village de Ndoyen Ndias di rafetlu li nu jox dalal gan ñi tey jii également leen wax ni ñun suñu liggéey ak Ousseynou Fall date na bu yàgg parce que ku ñu xam-xam ni nekkoon nañ étudiant depuis 2011 ba 2019 la yàlla def ñuy doog a génne foofu di yëngutu ci wàllu jàngale te nekk na nit koo xam ne moo nu doon accompagner moom lañ daan solliciter fu nu dëkk ci Ndakaaru également fekk nañu fa kon nak man yaakar naani ni gep buñu andon jox ko sila yaakar naani ni si la développement meuna commencer parce que bu done propre intérêt wala ay intérêt wa njanjar kon sax du dugg ci politique man mide de suma taxawé saña taxaw si bir mbolo di wax wala may wax waxu politique c'est grâce à Ousseynou Fall grâce à aussi nit koo xam ni sama papa sama lépp la muy père Madiagne mii toog aussi daan na ma woo di ma jox ay conseil naa ma nit boo nekkee sib dëkk kenn ëpp la faw jàng bu nu yëngu da ngay yëngu sa la nu yëngu bu ne du bu nekkul si yoon ne nekkuñu si yoon kon maa ngi koy sant di ko gërëm également di ko ñaanal yàlla yàggal ko si suñu kanam parce que vraiment man de njariñ la si man ndax yàgg na ma conseillé choix bi nu def nag keroog la may wax rek si suñu réunion laay waxaat fii su ko defoonul dina bett parce que nit mënooy liggéey ak état diko contre te itam bu ndee tiré ay leçon rek ñun waa Mérina ndakar lu nu dal moy opposé état état kenn duko ko opposé man nak étant jeune je lance un appel solennel à tous les jeunes de la commune de Merne Dakhar surtout les jeunes intellectuels ngeen xamni affaire baangi fi fii ci Ousseynou man la ma ko waxoon rek laa koy waxaat tey bu ma duggee si politique wala may dem di saña wax si mbooloo moom bokk na ci tey suñu moon bàyyi naa toog naa njaanjaar ma bàyyi toog suñu kër parce que nag quoi qu'on puisse dire yàlla xañuma ko mi ngi may dénk na ma teraanga mais bu may politique wala ma ciy ànd c'est pour la jeunesse pour que ma xam ni man kat lii Ousseynou di def su ma mënoon maa koy def kon mënuma damay ranger wu derrière moom leader nag boo koy samp wala ngay àndak ak dangay àndak koo xam ni su rombee ngaay man laa lijjanti man loolu dama ko saa tàmm ku loxoom joti sa kaw dama toog sa sun lycée bee Tiwaawoon waxtaane fa Ousseynou élection am am lu sa xew samay collègue ni ma yéen kon wéru leen man ko yàlla baax na waaye la ma ko waxan mi ngi si yoon bi di ñëw incha allah on le fera allah Ousseynou yal nañu yàlla lafal cat ñëpp gën a jàpp wasalaam. merci président Ousseynou Fall mon ami et frère euh, di président mouvement jëmmal yaakaar di ko nuyu mook euh, collaborateur am yëpp yaakaar naa bu ma ci ak Ismaïla daanaka tudd naa di nuyu mon ami et frère Gora Gueye Thiam ñoo nekkoon ci xeex bi xamante bi yàggul naam mais patriote moom fu mu gis moroomu patriote am day mel ni cinquante ans lañ xamante di ko nuyu moo collaborateur am yépp noonu laa dem ak sëñ am am di kunta sëñ am di keroog bi ñu amee formation fii ci Médina laa ko mës a gis mais dafa mel ni bi ñu xamante yàgg na trop ñi ngi nuyu autorité yi fi teew yépp kenn kenn ku nekk ci turam ak ci santam ñi ngi nuyu ñi ma jiitu ci pipitre bi euh, bu ma leen limee damay juum di leen wax ni rek lii lu mënul woon a ñàkk la xëy na tey la ko yàlla tudd mais nu xam na man xam naa mënul woon a ñàkk waxtaan naa ci ak góor a gay caam lu lu baree baree baree bare moom tam xam na ni mënul woon a ñàkk Gora Gueye dafa nekk patriote bu mag a mag a mag a mag ku ñu respecté ci département bi ku def liggéey bu re ci ci commune de Mérina Dakhar moom ñi mu àndal ku jàkkaarloog Ousseynou Fall jàkkaarloog Ngagne Diallo jàkkaarloog ay meeru ñëng ci condition yi mu jàkkaarloo woon ñoom ak moyens yi mu yoroon ñoom ñëpp mu boole leen def ci biir saako bi Gora jàmbaar nga politique nag

dama ne ko mon frère nan nga bëgg a ah mu ne ma ngi xalat mané ko non amul xalaat ya a pas à hésiter y' deux choix ñaari choix mo fi nek soit nga baye politique soit bo euh, soit nga ñëw passif munoo nan président Ousmane Sonko ni li ni la ko xalaté il faut nga defe ko ni. président Jomay Faye li li mo ci gën xey suba wacc Mérina Dakar nan ñom li ñuy def baaxul lolu xel nangu lolu nak motax jógu ma ci noppam suba jógu mo ci nopam ngoon parce que sama frère la té limu mu mën poste bam nek motax mu mën ko yaakaar naa meuna a recruter une centaine de jeunes à Mérina Dakar poste bobu bu doon s'il y avait un choix à faire ma ne ko euh, boo mënul ñëw Pastef bail politique bi continuer sa liggéey heureusement heureusement que mu am un staff très responsable staff bi may ñuko jamm

bépp ministère ministre bu war a génn moom mooy préparer dossier bi kooku nan lay contrer état munul nekk di leen wax nag yéen waa Mérina jàmbaar ngeen woon lool mais fi mu ne sas bi yokku na yaakaar naa Ousseynou góor a àndee foofu moom Mérina victoire bi leer na di wax sëñ Amdi rek nañ gën a yaatal xam ne ñi ñëw démb ak ñi ñëw tey ñëpp benn lañ ñun ñëpp ci benn teen la ñuy root benn teen la ñuy sotti yaatal leen góor am na fu mu mën gis nga ko ci terrain bi kenn mënu ko fi jàmbaari fakk tëdd la ñeme na terrain bi département bi respecté nañ ko wax ke wax kenn dàq ko ko bu ñëwee Ousseynou dooleeku ci am yoo xam ne mën na koo lijjanti ci kaw yaakaar naa duyoo boobu man bëgg naa ko bu ma ko amoon commune Niakhène jàppante leen loxoog loxo ngeen liggéey lo xam département bi na len baye xel région bi dina len baye xel au niveau national na len baye xel lepp lu génn mer nañu sedd ko ci cër bo xam ne sax xaaruñu ko won man lool lay xaar ci duo bi ñu ngi len di sante dafa goudi di len gërëm di la wax mon frère kër gi nga ñew sa kër la inshallah lepp luñ ci mën ci yaatal la au niveau national dinañ ko yaatal parce que nak yow vraiment libo la wuñu man nee naa euh, dama ko wax keroog ni ko buñ politique naroon a boole man jaral na ma man ma bàyyi Ousseynou dama ni ko buñ politique naroon a boole man ma bàyyi yaw nga continuer donc pour dire que li ñu boole bari na wasalaam comme dafa guddi ñu ngi leen di jaar baax. noo ngi koy jaarale ci axlu waa Mérina Ndakaar gii nu nekk ci penc mi ci Ndoyeen rawatina fii ci Njóobeen nuyoo boo xam ne noo ngi koy teg. ci loxol chef de village bi jaarale ko ci imam bi ak chef de village pour rek euh, chef de quartier bi nekk Ndoyeen ak bi nekk Njóobeen di nuyu mbooloo mi nuyu boo xam ni nag am na tàmbali mais amut yamu waaye li ëpp solo ci sunu teewaay fii ñu teewal fi parti Pastef commune Mérina Dakhar bépp li koy waral mooy noo ngi ànd ak notre frère monsieur Ousseynou Fall ànd boobu nag ay jamono daf ma woo téléphone wax ma lu am solo ni ma góora man de damay liggéey présidence yàlla dogal na yi tamit yéen yore nguur gi man day proposé nan ma cib les ak kilifa doonte loolu am na sama ngor muy bokk ndax munoo ndax muno nekk fonctionnaire de l'État nekk contrôle des finances nekk ca palais de la République lu seen la ngay ànd ak Masamba di ko campagne am ba pare nekk ca pale ba loolu loolu am xel xam ni sax loolu urut mën a nekk ndokk yàlla nag ba mu ko xamee te nag lu jiitu loolu présidentiel dafa jàll te suba ga mu yëkkati téléphone am woo ma ni ma félicitation ma ne ko wal naa la ba nga nooy ca kuréel mbataar mu ne ma li ma jaaxal sa grand bi ana góora sama mag ji ma ne ko wal naa ko ba mu nooy limal ma gaa yi fi nekk ak ñi àndal ñëpp ku ci nekk centre ba nga yoron la ma waxan def naa ko doonte ay kalandoo laa yoroon na monsieur kalandoo mi nii même yi suñ ci demaa tamit noonu lay demee waaye sant yàlla ku mel ni Ousseynou am xel ñëw ni man kat gis naa ni lii parce que patriote la lu baax la dama ciy jàpp kon du nu aman tey cinquante quatre pour cent Ousseynou am ngaw sas ndax yow doo ñëwee am na ñeneen ñuy ruumtoo ni danoo bëgg a ñëw ndax dëgg dañ nga ñëw nu bëgg a ñëw ñëwee ndax da nga da ngay jàppale Pastef ci législative yi waa jëmmal yaakaar la mu bind ak la mu wax ak la ma waxan loolu la ko defee ginnaaw bu ma la secrétaire

ku ne la damay ñëw dolli la ci li nga man te d'accord naa ne gis naa ne li nga yor lu baax la boroom xel koy def waaye sama waa ji sama waa ji Abdou Lahad Gueye ñaaxeen wax dëgg yàlla yàgg nanoo jëflante ba benn jour la toog ni ma xanaa xamoo ne Ousseynou moom maa ngi moom a nekkan benn jàng noo bokkoon fu nu nekk te ni nek passif nu andal di liggéey ci lenen ba dugg ci ay affaire formation yoyu ba toog waxtaan gindi lu konte Ousseynou lu mu metti metti bima mu fonctionnaire 10 ans soko dugg ci bir 4 ans politique mari na Ndakaar lu mu fi def man soxoruma lama ko don waxe ci ay miru diko wax ci kenen kuma gis nga def dara man la def nga dara waye nak li nu bëgg ñun ñëpp nu andando defar commune Mérina ndakar loolu mooy li ci am solo nuy bàyyi xel yéen ñi ànd ak Ousseynou aussi tam ñun Pastef organisé wu nan sañ am di kunta wax na ko laa luyoo na ngeen ni njaaye gëj du bàyyi du tàyyi du sonn suñ daan campagne kalandoo lay ñëw dinu daq ci àll bi fu ngeen toll fu mu nekk dañu fay fekk bari na jurul nu ci nekk sax ci lim waaye def nañ ko ci cadre campagne bu silwise wën waxunu lu ñaaw tudduma fa Ousseynou tuduma fa ka Ousseynou andalan noy campagne présidentielle tuduma Amadou baman don top lama don tudu moy projet Ousmane Sonko ak Diomaye Sonko te ci la len kon dani wax Ousseynou yak sa mbolo jëmmal yakar. jëmmal yakar, no ngi am yaakaar ci yeen ci li ngeen nu wax ci 2000 li nga xamni moy le 17 nu fa séenati caa ci législative nga remplir ko communiquer ko ñepp jot ko Sénégal jot nañ ci so communiqué bam mu présidence la fanani merci beaucoup présidence la fanani dañ koy wax fi leen fi waxit yaakar naani ni Sonko du nelaw da du ko xam loolu ko ko xam nga xam ko Basiru jomay du koy tax aussi not yaakar na leenu nu mo nu gëna ay ndax té pala balé yéwo fi mu luñ fi def du subaa dina ko expliqué kon no ngi leen sante vraiment di leen gërëm di leen wax nak ci parti bi touti parti bi ku ne gis na ni aj nan ay installation loolu ñëpp ko xam Abdoulaye mi Guèye mi xam na ko ñëpp xam waaye terewut ñun ñi nekk ci base yi jël nañ suñu responsabilité di yaatal yaatal mooy keneen la tey jii damaa ñëw pour dimbali ci législatif yi comme aussi loolu amoo vraiment payam su ko neexat maandu ci te du ko nekk te nekk xëy ca bala ba de du ko neexee nit làqutu ànd ak kenn ni leen dem leen ànd ak moom te du ko tee nekk ca pale ma kon li am solo Ousseynou jaar na fi mu war a jaar yéen nag noo ngi leen di tàllal loxo dëkk bu ngeen dem ña fa nekkal Pastef comme nii ko Ousseynou defee ak man joxante leen loxo ak loolu du ko defee législative yi bureau yu gën a nooy noo ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum